bonjour et bienvenue sur Lugare TV. Alors c'est parti pour l'édition de ce vendredi 18 euh, novembre 2022. On démarre l'actualité avec euh, cette page nécrologique, le rappel à Dieu euh, donc de Youssou Diagne. Il fut président de l'Assemblée nationale, le président de la République Macky Sall. Justement, il a réagi suite à la disparition du doyen Youssou Diagne. Il rend hommage à un homme disponible, généreux et d'une équipe exquise euh, courtoisie. Alors, euh, mes condoléances, je le cite, le chef de l'État, à sa famille et à l'Assemblée nationale, a créé donc euh, le chef de l'État Macky Sall. Il a été le septième, le président Youssou Diagne, président de l'Assemblée nationale, qui a succédé à Cheikh Abdouratra Sissoko, l'ancien membre du Parti démocratique sénégalais, décédé à l'âge de 84 ans. C'est ce vendredi à l'hôpital principal Aldo Dakar. Et puis, nous parlons de cette grande marche de la presse et des acteurs des médias, euh, dont la CAP, la coordination des associations de presse, c'est pour la libération de Pape Alénon ce vendredi. Alors, le convoi qui va quitter justement le rond-point Gédo euh, pour atterrir à la place de la Nation. Alors, euh, la presse, les journalistes ainsi que les caméramans, tous dans la rue cet après-midi, c'est pour la libération de Pape Alignon. Et puis en parlant de cette marche nationale, justement, retenez que le préfet de Kaolac, lui, il a interdit tout bonnement euh, cette marche pacifique des journalistes pour la libération de Pape Alignon ce vendredi. L'autorité préfectorale, et il n'a pas validé cette marche au motif d'une euh, d'un vice de forme euh, relatif à la rédaction de la lettre d'information. Euh, par contre, certains confrères relativisent et parlent même d'une décision unilatérale et prévoit de faire justement un point de presse. Ce sera cet après-midi. Euh, donc, euh, la presse de Kaola qui invite euh, toute la presse nationale à ce point de presse prévu euh, cet après-midi, le vote du budget de loi de finances qui se poursuit euh, ce vendredi à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, donc, le ministre en charge du logement, de l'urbanisme et de l'hygiène publique, euh, M. Sow Abdoulaye, il doit donc défendre son budget qui s'élève à plus de 85 milliards de francs CFA. En parlant du budget, retenez qu'aujourd'hui, 13 euh, milliards euh, de francs CFA seront euh, dégagés pour, dans le prochain budget. C'est pour indemniser ces ex-agents de la Sotrac et de Hamas Sénégal en grève de la faim depuis plusieurs jours. Alors, pour réclamer le paiement de leur indemnité due après la faillite de la Maison nationale, et ces pères et mères de famille verront bientôt le bout du tunnel. Alors, le ministre des Finances c'est du budget, Mustafa Mamadou. Il a annoncé euh, donc euh, cette euh, manne financière de 13 milliards pour, à, cet effet. Justement, c'est pour ces agents de Hamas Sénégal et de la Sotrac. C'est désormais officiel, euh, le Sénégal va devoir jouer la Coupe du Monde sans son joueur favori, son joueur, son meilleur joueur, Sadio Mané. Alors officiellement forfait pour cette Coupe du Monde Qatar 2023. L'information est confirmée par la Fédération sénégalaise de football depuis hier qui souhaite un prompt rétablissement à l'enfant de Bambali. Justement, nous allons revoir euh, cette déclaration de la Fédération sénégalaise de football c'est-à-dire Regardons. Sadio Mani officiellement forfait pour cette Coupe du Monde. Coup de tonnerre pour certains Sénégalais. Par contre, pour d'autres, cette équipe de l'UCC, euh, actuellement présente au Qatar, peut bien apporter la Coupe du Monde ici. Alors, nous allons suivre justement quelques réactions avec Yama Faye. Non, là, on mettre Sénégalais, on va tous les Sénégalais, mais là, le grave. parce que vingt 22 lañu ñoom ñëpp euh, équipe la rek yaa ngi dégg fi mu ne Sadio Mané euh, maxi kii nu koy waxati sax quali qualification Coupe d'Afrique bi bi nii kii Ismaïla Sarr comme ni ñu manqué woon noonu la ñu manqué rek mais Bamba Dieng yi ci yeneen joueurs yi ci yoo xam ne si nii dañ leen poussé rek am nañ ci ñoom yaakaar quoi. À présent, nous en arrivons au reportage du jour, euh, parler de cette polémique au Sénégal après la mort de cette jeune dame euh, provoquée par une consommation de produits euh, favorisant la prise de poids ou des rondeurs. selon Allé, ce citoyen de la vingtaine, aujourd'hui les femmes sénégalaises ont la pression de répondre à des critères de beauté subjectifs parfois est déterminée par les hommes, alors que rien que la beauté, bien même la simplicité et le naturel, c'est bien sûr de l'art. Alors nous allons suivre euh, la réaction de ces jeunes hommes euh, avec Yama Faye. ah loolu wax dëgg yàlla normal ku ci yor bu baax bi daal bay boo nga bàyyi bu fekkee film nga nga xam ne film nga quoi ñi nga xamante ne nag moom travail de maman même chose ndax dafa am période tanga, am période seddaay ku nekk sa bosse

mbokk yi xarit yu Lougaré TV bisimilah ci xabaar yi xabaar yi dañ koy door yi lu jëm ci gënuk àddina euh, kii di Youssou Diagne nekkoon fi euh, président assemblée nationale euh, ci nguurug Abdoulaye Wade moom nag Youssou Diagne ñu gis na tey jii rek lu gën àddina foofee ci hôpital principal bu Ndakaaru njiitu réew mi Macky Sall mi ngi noonu rek jébbal njaalam di wax ne tey ji réew bu Sénégal ñakk na nag ku mag ka nga xam ni mënees na ko wax ni homme bu généreux disponibilité am eh, ngir rewam mom aladji eh, yusu Diagne tayji ñu gis ne eh, nekkon na ci assemblée nationale wut fa ki di Abdou Khadir Sissoko genna dina nak mu tollok ci ñet fukki at ak ñent fofé ci hôpital principal bu Dakar bu lugare TV ci samay kàddu mu ngi jébal ndialam assemblée nationale ak askanu Sénégal gannaaw su lolu ñu wax ci marche bu reuy ba wara am fële ci Ndakaaru ngir nak ñu mëna may mu bu mom pap Pape euh, suñu rek confrère bobé bobé ba tey ñu neub ko jant bi euh, tey ji euh, CAP di coordination des associations de presse képp kuy taskatu xabar wala sax ngay caméraman wala monteur y'a nga ci mbedd mi ngir nak ñu mëna sakku ñu libéré kii di Pape Alé convoi bi ñu xamal ni ma ngay jóge ci rond point Jiddu nara atterrir fële ci dakaru ngir nak ñu def ko marche pacifique ngir ñu man ko may fu mu féex moom

lu jëm euh, ci na na nga xam ne la ñu bindee lettre ba ngir autorisation bi nañ ko bindee euh, te dewul ca yoon euh, bu ñu sukkandikoo ci moom préfet bu kaw Kaolack loolee tax rek moom mu lankal leen boobu marché suñu naataangoo yi nag journaliste yi nekk ci kaw Kaolack ñoom leneen la ñu gis moo di prétexte ba nga xam ne préfet bi jox na joxe na ko amul fenn fa mu ko wekk alors ñoom ci noonu sax la ñuy mujjee def ab point de presse tey ji ci ngoon ngir nag wax lu jëm ci la ñu namm amal ngir libérer. kii di Pape Alé Niang alors ci vois lui euh, ñu dem euh, ci assemblée nationale wax lu jëm ci euh, vote du budget de loi de finances 2023 ñu gis ne tey ji ci aljuma ji yëf yi ña ngay wéy foofee ci assemblée nationale mais jawriñ ji ñu de wàllu dëkkuwaay wàllu hygiène publique logement di Abdoulaye Seydou Sow moom nag ma war a taxaw ci kanamu député yi nga défendre budget ba ñu koy nattal moom itam ci 85 milliards ak lu toftal alors lolé dañ dañ leen ko topal euh, ci yenen ni jëm euh, jamono ngir wax batay ci walu budget fuk ak ñetti milliard ñu war ko euh, ligay katu ama sénégal ak ñi di wa sotrac ñom nekkon fi ay agent tay ji ñi ngi won ci grève de la faim gëna ba ñu gisee ay yu bëss ngi ñu yeglu ñom itam ci bor bu leen nguur gi amel tay ji nak nguur gi nee rek dina gënal tollu fuk milliard ak ñett ngir jaglél leen ko ñom lolé nous ko xamlé ci nationale Mamadou Moustapha Ba walum budget mo xamlé lu ñu mel nous euh, taxna euh, wala tax ba ñom de famille yëngu euh, ci Sotrak ak ci Sénégal ñu itam.

information ba nga xam ni euh, fédération def na ko di démb ci ngoon Sadio Mané officiellement forfait loolee nag tax na ba tey ji Sénégal ku ci nekk na nga yeewoo neexul leen euh, ndaxte ka ñu jàpp ni wala sax ka gis ni mooy meilleur joueur ci équipe bi euh, yàlla dogal na ni euh, du dem ci coupe du monde ñenn ñi nag ku neex lañ ko gisee musiba wala sax naqar gu tiis ñeneen ñi gis nañu ne équipe ba nga xam ni kii di Aliou Cissé na Qatar mën jëmmal équipe bi ba indi fi ndam alors dañuy dem yenn ci réaction fii ci Guédiawaye ak suñu ndaw li di soxna Yaama Faye. non loolu dana métti Sénégalais yëpp dana touché Sénégalais yëpp mais loolu garaaw parce que vingt 22 lañu ñoom ñëpp euh, équipe la rek yaa ngi dégg fi mu ne Sadio Mané euh, maxi kii nu ñu koy waxati sax qualification Coupe d'Afrique bi bi nii kii Ismaïla Sarr comme ni ñu manqué woon noonu la ñu manqué rek mais Bamba Dieng yi ci yeneen joueurs yi ci yoo xam ne si nii dañ leen poussé rek am nañ ci ñoom yaakaar quoi. ñu wax ci leneen ab produit ba nga xam ne jigéen ñi cuur nañ ko lool lépp ngir rafet taaru wala sax am na bindoo loolee nag gis nañu ni mu ngi defi jëyee ci réew mi gannaaw nag ba ci ab njagamaar ñàkkee ba kanam tey ji bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci góor ñoom gis nañu ne jigéen ñi dafa am pression ba nga xam ne ña ngi koy subir ngir rek gën góor ñi gën leen mën a bàyyi xel te loolu gënul ci ñoom naturel bi moo gën ale moo xam xamle lu ni mel ab ndaw la toll ci ñaar fukki at moom itam lii la dénk suñu ndaw lii nañ ko ci ah, dëgg yàlla normalul ku ci yor bu baax bi daal bay boo nga bàyyi bu fekkee taay film nga na nga xam ne taay film nga quoi ñi nga xamante ne nag moom travail de maman même chose ndax dafa am période tàngaay am période seddaay ku nekk sa bos bu taay bu tàngaay ñëwee ñu xam ne taay film yeeg moom bu sedd bi ñëwee ñoo xam ne ñoom ñoo ko moom mais diw affaire yi ba mu lay indi ay ay bagages nii après yow rek ñun góor ñi moom ñoo ngi fi moom boo naturelé ñoo ngi ci boo naturelé wul nag yaa ba gën a xam waaw. mi nga mbokk yi xarit yi lii bokk na ci li fi gën a fas ci xibaar fii ci Lougaré TV di lañ jaajëfal bu baax ci teewlu bi di lañ jox dig daje suba incha allah.